ñaari équipe bi ku nekk euh, def na kemti lay kàttanam ba déjà di leen euh, di féliciter ñaari équipe yëpp ku si nekk euh, def nga sa mën-mën bu baax a baax parfois am nañu qualité jeu bu baax mais sur la durée am na tuuti yàqu-yàqu yu si am parce que xale yi aussi dañu sonn yooyu dafay am mais ñun si suñu approche match bi amoon nañu njort <coughs> que adversaire bi bu ñëwee au début nous avons essayé de presser pour euh, gêner nous, mais on savait que sur la durée plus le match bi avancer plus nous ñuy l'espace d'espace et nous avons parce que l'espace, après retrouver nañ on a mis en place euh, mettre en place un jeu de temps en temps et nous avons eu l'opportunité de négocier. Malheureusement, négocier malheureusement manqué nañu de concentration et si comme je dis rapport de rapport de force bi ñun si euh, zone lañ ko situé won moy suñu côté droit parce que xam ni joueur bi nga xamanteni mom moy jouer fofu ci ñom moy Ousmane Ousmane euh du défendre lu bari donc euh, ñun ñoo ñu décidé won def sortie de balle fofu ak euh, zone intérieure du terrain bi où ñom ñetti joueur lañ fay am ñun ñent lañ fay am. c'est vrai que premier mi-temps bi suñu ñenti joueurs yoy amon nañu jafé jafé pour retrouver sen bir mais en deuxième mi-temps bi ñu xawé corriger touti euh, euh, retrouver euh, ils se sont bien retrouvés en tout cas à zone et créer nañu ay opportunités je pense que nous nañ ko négocier malheureusement dans le dernier geste manqué nañu de concentration et puis voilà ça nous a valu que tay ñu def match nul mais c'est un match qu'on devait gagner